mbooloo mi gan ñëw na tey nun ñépp nan ko dalal yaatal ko jublu ko ak mbég may ko it te jure te weeru koore ganum mbooleem ku yàlla soxal nun ñépp war nanu ko may aajo léegi mu wi ku muñ te farlu ci day xëy benn tàggu la dem balaa ki yu dootul jeeki koo waaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki ñu ngi leen nii di leen siyaara di leen baal wax te di leen baal di leen alhamdulilah koor gi fi ne nii moom fa tabarakallah xam naa mbokki mbayeen yeeg looyeen yeeg euh, ñu sant jaxate ak Touré ak ñi mel ne ñooy sant jaane ñoom ñëpp rek xam naa fi ne nii tabarakallah xoolee dana sedd ñu nekk ci guddik fukkeel gi ak euh, juróom-ñeent ku ci julli juróom-benn rakka bu ci ne mu jàng fatiha benn yoon soo ixlaas juróom-ñaari yoon googu julli ak payam moo di àjjana julli googu ak payam àjjana rek la te ku ko def yàlla dana ko musal ci lépp lu mu ragal te bu ñaanee xaajoom yàlla dana ko faj te bu ñaanee xaajoom yàlla dana ko faj te seytaane da koy daw te seytaane da koy daw faw te dana deeyaale ak ngëm te kuréel bay njëkk tàbbi àjjana ca lay bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kii ki tiis ak jëy koo njariñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ